bokk yi gannaaw ba nu sant yàlla julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñëpp di balu xaq ñëpp yàlla nam yàlla bari jéggal suñuy rëcc-rëcc suñu diggante ak moom ak suñuy diggante ak suñuy moroomi jaam e, di sof suñuy kàddu rek ci yi nga xam ne moom la mbokk mi doon junj léegi yàlla na ko yàlla fay di xamle ne tàmbali woon nañu keroog wax tuuti ci li ñuy tudde falsafab tabaski maanaa li nëbb ci biir ba tax yàlla doon wax seydina ibrahima ak seydina nuuxin ak seydina muusa ak haarun léeg-léeg mu ne salaamun ala muusa wa haarun salaamun ala ibrahim salaamun ala nuuxin fi l aalamin teg ca wa tarakna alayhi fi l maanaam seeni jaar-jaar ñoom euh, daf fiy des ba faw rawatina nag ñun ñi nga xam ne dañu ñëw tënk ci sunna sayidina ibrahima alayhi salaam jaare ko ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla waxoon ne yow sayidina muhammad yow sayidina muhammad na nga xam ne ku ñuy wax ibrahima alayhi salaam laa la royloo seydina ibrahima daa rëy ci suñu borom ba nga xam ne da rëyut ci moom sax waaye moo ko tollal noonu dem na ba ne ibrahima dong kot aw xeetu lëm la aw xeet maanaam li waykat yi wax naan rubba rajulin qiimatan ka alfi wa rubba alfin qiimatan ka uffi yàlla wane na ko ci jëmmi Seydina Ibrahima ba wax ne sax Seydina Ibrahima alayhi salaam yàlla moo ko jàppal boppam def ko xaritam fi muy waxee ne inna Ibrahima kaana ummatan qaanitan lillahi xanifan wa lam yakun min almushrikin shakiran li an'umihi ijtabaah wa hadaahu ila siraatin mustaqim wa aataynaahu fi dunya xasanatan wa innahu fi alaxirati la min alsaalihina summa awxaynaa ilayka an ittabic millata ibrahima xanifa am feneen fi muy wax ne maa kaana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kaana xanifan muslima wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko toppal ci moom moo ne sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam du moroomam ndax seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy kenn ci yónnent yi ku yàlla masa woo moom rek invité ku seydina ibrahima ak ni mu toll lépp yàlla da yónnee ci moom ak seydina muusa ak seydina isa ak seydina nuux waaye moom mooy kenn koo xam ne yàlla dafa yónnee ndaw ne ko demal woowale ma ko te ànd ak moom dikk waaye nag kam ko ne toppal ci diina jëm yoroon kooku tam waaye la de moo tax ni ñu ko junjee woon keroog fii fi mu jaar te mbokk mi junj ci lu am solo yàlla na ko yàlla dolli dellu fayaat euh, sabab sa tabaski euh, lu mat a fàttaliku na lu am solo la ndax li taxoon yàlla di yónni ay ndawam ba sayyidina muhammad mujj ci sallallahu alayhi mu toftalaat ca ñoo xam ne ab yaram lañ doon dundu am njàngaleem lañ doon dundu ba suñ jon yàlla tey yàlla séddinu ci Cheikh al Xadimu Rasul lañ doon jàngale lépp ak lañ doon wane ci seeni jikko ak seeni jëf yépp mooy taqwallaa te yi mooy jëfe ndigalil suñu boroom bàyyi ay tereem kenn du la ci séen eh, bokk na ci lu ci gën a am solo ci fan yi waxtaane tabaski balaa ñuy bàyyi ba bisub tabaski ki ci boppam bañ julli ba sëlmal ba nga xam ne jaay am xar weesu na jënd ko weesu na ñu naan nii la am xar di mel nii lay toll fekk am na ñoo xam ne sax ñoom rend nañ ba noppi day mel ne waxtaane ko ba dañu caa àgg daf cee am solo lool gannaaw bu ñu xamee fi tabaski jaar ba agsi fii yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ne woon na buñ ne tey la taafeer wala tabaski danañ ci teg fukki fan door a àgg ci bisu tabaski ci boppam waaye nit ñi nañuy faral di wax baat yi nga xam ne moom laa ubbee woon muy takbiir taxmid ak tahlil ak tasbiix allahu akbar allahu akbar kabira ni ma ko tàmbalee alhamdulilahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wallahu akbar allahu akbar walilahi alhamd ba ba ñuy àgg ci tey la tabaski démb la tabaski barki démb la woon bokk na ci li ci gën a am solo euh, am na ñaari saxaaba yu mag am na ci ku ñuy wax abu hurayrata ku siiw la abdurahmaan ibnu saxr moo keneen ak ñeneen ñu bari lim lañ waaye moom ñu bari xam na ko dégg na ko moom daana def bu tabaski ñëwee tey la benn fan ba ba ñuy àgg ci bis bi ca marché ba lay dem moom di ko fa wax nit ñi di ko toppandoo ndax am na ñoo xam ne bataaxal bi àgguti woon ci ñoom waaye day mujj mel ne marché bi bépp day riir di ko waxandoo lu am solo na ba ba ñuy àgg ci ñaareelu fan yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bu ñu àggee ci bisu tabaski gi ci boppam eh, allahu akbar allahu takbira yooyu ma wax bu ñu demee ci alxuraan fa muy digle aj daf ne seydina ibrahim digalal nit ñi ñu aj si màkk eh, woote rek moo la ci war jëfi ndigal waaye fu mu war a àgg yàlla moo ko fay àggale woote na ba tàyyi gisut kenn nag ndax boobu nit ñi melaguñ nii ñu mel waaye ku fa dem tey da nga xam ne jëfe ndigalul suñu boroom eh, mooy li tey ku nekk bëgg naa jóge fu nekk dem wujji watab Seydina Ibrahima boobee alayhi salaam ba tax yàlla ne ko woon bu ñëwee danañ fi fekk njariñ loo xam ne fooguñu ko woon buñ ñëwee ni danañ ko fi fekk waaye nañ cay boole di tudd yàlla nangami fan yii loolu ñun ñëpp ca lañ bokk waaye buñ tabaskee ba noppi wadkuru llaha fi ayaamin maadudat waaye fa ida qadaytum manasikakum wadkuru llaha fi ayaamin maadudat mooy tey la tabaski jul nañ ba noppi la ko tàmbalee sa ngoon ga ba ba ca suba sa ba ca ginnaaw suba sa ñii danañ toogaat mun naa ñaari fan fa man taajala fi yawmayni fala isma alayhi wa man taaxara fala isma alay ñett ñenn ña toog fa ñetti fan kon ñetti fan yooyu yëpp ak fukki fan yi ko jiitu jullit bu nekk war naa mën a fexe ba mokkal baat yooyu di ko faral di wax lool li feeg nekkut di julli wala nekkul di wax waxtaane farata wala nekkul di jaay ma walla am wecc ma loo xam daal lu ñor xom lu taxaw waaye su ci noppee daal di wéyaat digg nañ ci yool bu am sol boo xam ne par ak lay am kon nañ ci gaawantu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñi nga xam ne aji wuñ màkk ñoom yu ñëw nañ ko keroog nañu fexe ba bu tabaski gi ñëwee ñu man caa rendi am xar mu góor moo ca gën bu amut mu góor mu dara sikkut xar muñ tàpp baax na su ko amut xar mu jigéen baax na su ko amut mu wut bëy wu góor wala bëy wu góor woo xam ne dañ ko tàpp wala bëy wu jigéen su munta am nag nga xam ne daa manqué mu seet nu mbokkaate aw nag wala gëléem waaye li ci gën a am solo daal moo yeneenti bi sallallahu alayhi nee na bis boobu moom bu ci àggee fukki fan yépp juróom-ñeenti fan yi nañuy wax loolu yi ma tudd léegi waaye suñu àggee ci bisu Tabaski ci boppam moom nit defalu ci yàlla lu ko gënal tuur ca deret kon lu mat a sonne la coono bu yam nag boo xam ne bor booy xalaat ba bu ñu àggee ca bis ba xéewal yi cay am doo ko tal moo xam muy xar mi ci boppam wala mooy yi nga xam ne aada moo ko ci boole jënd yére yu bees yu cher jënd ko jëndal ko ñu bari ak ya ciy aju yépp daal yoo xam ne aada rekk la te junjoon lañ karo ne sëñ bu mag bi nee na euh, ku bëgg a àgg ci yàlla day ngooy ci sunna na muy ngooy ci sunna nag mooy day dem topp ci koo xam ne ma nga teg tànkam ci sunna du ko mooy ci zahir ak ci baatin ba noppi am xam-xam lool boo xam ne lu ko waaj indil rek ki topp ci moom lu mu ko indil mën nag ko layal génnal ko ci alxuraan nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na su ko mënut mu fexe ko ca génne kon ñett a ngi nii yoo xam ne ku fas yéene ki na ko bàyyi xel bu baax fexe daal ba amam xar xar mu góor am kuuy ñenn ñi naan am xaaf moo xam ne ñiy joxe ndigal naan andi leen xar yi ñu yët ko sëriñ bi nattukaay yooyu ñuy natt. loolu lañ bëgg ci tabaski fexe ba bu ñu ko wéetee sëriñ bi euh, lim ba mu ko yët mel na bu ca nekk sëriñ bi mën koo fab tabaskee ko moom noonu la am tabaski di mel maa raaxaale ci ne moo ko am tudd ñoo bokk àtte xar mi ñuy tabaskee mooy mooy matum tudd mooy mat am tudd euh, bu dee ci xar ñii nee nañ juróom-benn weer ñun nag ngir miñ gën a àttewoo mooy juróom-ñetti weer lu néew neew na ko xar mi am ba noppi béjjën yi ne làng gen genn ba jot sëkk muy xar moom daal ku ñu yabaloon ci gétt dama tànn xar ma la sa gënal boo demee moom ngay jël moom yi lañuy jël jox ko yàlla rey ko te yàlla tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne Euh, yenta ngi ne yoo xam ne kuy wutum tabaski ne ko ca moytu ba ca jëkk mooy xar moo xam ne mel ni xel la yor euh, genn wet gi rek lay gise wet gi nga xam ne daa yàqu mën nga caa jaar ba yor ko jàpp ko te du la gis benn ñaareel ba mu wéradee wéradee ba nga xam ne wóor na la ne daal fekk tabaski moom du fi mën a wér wala pikiir nañ ko fi pikiir yoo xam dañ ne la fekk fukk fan ak juróom bu ko kenn rey loolu ak wér di moo koy waral wala boog mu jeex takk ba nga xam ne ku ko rey itam yaxi kese lay doon wala boog mu doon xeex ba béjjën ya damm di car-car yi te fekk tabaski gi du fi wér waaye su fekkee mën na fay wér te mënoo am meneen nit moo fay sës loolu mooy xar xar mi si gën a baax mooy bu mucc ci yooyu ma wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo mënta am nag bu amee yépp ba ak ngóoraam manqué nga xam dañ koo tàpp moo ci topp su loolu am man na mi ngi fi ne gàññe waaye daa cher ba waa ji mënu koo jën na dem jënd xar mu jigéen su fekkee xar yu jigéen yi seer nañ ni seen càmmeñ yi mu wuti aw bëy bu góor bu baax woo xam ne moom itam lum néew néew am nam at su ko amut mu wuti bëy wuñ tàpp su ko amut mu wuti jigéen su fekkee moom itam mënut a am càmmiñam ni càmmiñi jafe la jafe mu dem seeti kum bokkaaleel aw nag am na ñoo xam ne naan mu wuti nag waaye ku mun ta am xar nag dana ko jafe moom waaye mënees naa bokkaati nag nag lim nañ ko ba ci ne juróom-ñaari nit mën nañ koo bokkaati jënd ko te am na ci nag yoo xam ne su ko juróom-ñaari nit bokkee ku nekk joxe fukki junni nagu juróom-ñaar fukki junni moom bu ko juróom-ñaari nit séddoo ku ci ne mën na caa am lu ëpp am xam te lu tee ñu door a wuti gëléem nag moomu nag moom itam lu mu néew néew dana am yaari at yu mat sëkk nagu yaari nawet muy benn kon nattukaayu xar mu matum bu dee xar la na am juróom-ñetti bu dee bëy at bu dee nag wu ñuy bokkaate nañ ko laaj ba mu mat ba mu am yaari at su nag amut gëléem a fa ko laaj ba mu am juróomi at ñaareelu e, bu jëkk bi mooy at yi ñaareel bi mooy mu mucc ci ñeent yooyu ma waxoon te sallallahu alayhi wa sallam ma wax ko ñetteel ba mooy mu nekk ba waxtu wañ ko ne nga rendi mu rendi waxtu wa jot waxtu rendim tabaski nag mooy tey jii la fukki fan moo gën su fekkee su su fekkee waaj am na ko dañ koy bañ a tënk rek ci ne bu bis bi jàllee jeex na waaye nit ki mën nay wéy di ko wut bu ko bis bu jëkk bi rawee ca yoor yoor fekk julli nañ ba noppi daara ji nga xam ne ci la ñu nekk daara imam Malik day wax ne balaa kenn rayum xaram moom na ndég ba ñu julli ba sëlmal ba imaam ren di ci kanam ñépp moo tax ñu yóbbaale xarum imaam ci jullikaay ba su ko defee ku fi jóge nag su rendee fekk sart yi ñu waxoon ci tabaski ne mooy matum tabaski daj na su boobaa mu sañ yaakaar def na lañ ko santoon bàyyi la ci des loxol yàlla yàlla yàlla nangu yépp su ko bis boobu rawee yor yor bi tam am ko ci ngoon gi mën na koo rendi mu daal di gaaya bu fekkee amagu ko muy wéy di ko wut ba démb la woon tabaski su ko amut mën na koy wut ba barki démb la woon tabaski su ca rawee baax na su ko wutee ci ñetti fan yooyu amu ko nag ak fukki fan yi ko jiitoog daaw ba ren wax dëgg yàlla wàcc na ko nag waaye xar moom yi la ca gën it mooy borom tabaski mi ci boppam rayal ko boppam ci loxoom su ko mënee su amee kattanam ak ku fitam waaye su ko mënut it mën na ko rendi la keneen te mu baax waaye genn kërit suñ ca rayee mel na xar doy na sëkk waaye da gis koo xam ne day ray day jënd am xarum boppam wala mu fexe ba am ko sonnu ca lool waaye ni ni ay soxnaam toll it soxna su ne dana la yeewala bu xam waaye ñi nga xam ne it ñoo ne si kër gi kenn ku ci nekk dana wutum xar moom itam loolu lépp lu baax la ku ko man rek lañu wax waaye su fekkee nag daan na teg yenn coono yi ak genn yàq gi yonent bi nee na yàq amu ci sax ndax ku fexe ba amoom xar am tabaski ci niñ ko waxee rendi ko te suñu borom tax lu xar ma rëy rëy ak lu mu ko bëggoon bëgg ñàkk ko ndax bu yomal xiyaamee yàlla daf koy indiwaat mu yor bi jinam yoroon sëqi kawar nam sëqe woon kawar mel nam mela suur nam suure woon ak ay ak lépp loolu du dara ci suñu boroom lu yomb la ci moom ku xool àll bi noor ak nawet da nga xam ne yàlla mën na lu nekk kon du yàq waaye xanaa kay ci tudd ak yàq mooy jël man xar jënde ko ñaari million jël man xar jënd ko ñetti million te moo ne mi ngi leen nag ñoo xam ne li leen di bàyyee xel ci mu tabaski mooy bu rayee ba noppi jël ab tànk yët leen xanaa bu jëloon ñetti million jënd si xarum fanweeri junni dana des juróom-yenti xar mu jënd xaram ku ci nekk fanweeri junni séddale ko ay waroomi kër ku nekk tabaski su boobaa yool bañ cay amee du wàññi dara ci ab yoolam waaye gis nañu fi xarum téeméeri gi nekk ñeent fukk ñu jël ko jox ko ab ministre wax dëgg yàlla ministre lottu ci jël ko jox ko député wax dëgg yàlla ab député jël ko jox ko haut fonctionnaire wax dëgg yàlla kooku lottu ci waaye bu dee téeméeri junne ñeent fukk bu ko séddalee juróom-ñaari xar xar mu nekk ñaar fukki junni wax dëgg yàlla dana ko mën a jox ñu ko dimbalee ñoo xam ne su ko jëndeem xar jox leen baax na su su leen joxe xaalis ne wut leen am tabaski keneen dolli leen ci keneen dolli leen ci ñu baree bare baree baree mën na nañoo tabaski waaye nag daaw xar mam tabaskee ñetti million la ko jënde ñeenti million la ko jënde téeméeri junne juróom-benn fukk la ko jënde walla moom la joxe loola bokkutoon li tax tabaraka wa taala di wax sayidna muhammad toppal sunna sayidna ibrahim waaye taxutoon mu naan jullit yi topp leen sunna sayidna muhammad mii topp sayidna ibrahima ci tabaski ndax sayidna ibrahima la yàlla waxoon ne ko taqwallahi baat yi ngay wax ci kanam nit ñi ta di ko jëfe inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin la sharika lah waaye moo ne yonent bi itam moom yàlla inna ataynaaka al kawsar fa salli li rabbika wanhar sooy tabaski na yàlla tax kon lu mot bàyyi xele ngi ci noonu du doon ak yàq daal li fee suñ ko nettalee nit ñi loxo du dem gémmiñ ci loolu nu mën a amee xaram ñetti million nu muy mën a amee ak nu muy toll su àggee foofu nag leneen mën na caa dugg moom waaye ñu bàyyi ci xel ne aw ren di ndax am ren di ak rey bokkuñu rey ak ren di it bokkuñu rey moom mooy fexe ba mu dee rek su ko kuttee da koo rey su ko jamee da koo rey su ko fàddee wala mu dóor ko bala fetal da ko rey waaye ren di daa am ay norme ay muwasafa yoo xam ne moom lislaam santaane xaram tabaski ak xar mu dul tabaski sa biir di rendi na ko defe noona mooy day wut paaka bu ñaw tërale xar mi wetu càmmooñam bopp bi jëm gànnaar tànk yi jëm Saalum su boobaa loxo bi muy war a rende bi ñu gën a taamu muy ndeyjoor dana ko jekk lool moo tax euh, yuridu llahu bikum al yusra wala yuridu bikum al su ko defee taamu nañ ca nag mu doon ku am kattan koo xam ne bu dawalee benn yoon rek xar mi gaaw gaaw a dee bañ a sonn ci ni koy reyee waaye bu ko rayee ba noppi it euh, bokk na ci sunna bu ñu ci demee danañ ci fekk ñu ne ku rey am tabaskeem sañ na caa xéwlu bu wér waaye joxe ca li ñuy wax sarax walla maye waaye maye nag daa amutub yool ndax maye moom ngeen dégg ñu naan ku ko def ku nekk ku ko wax la bëgg buñ ñu ko waxee mu yàqu waaye day joxe te ngir yàlla te yàlla tax mu bañ caa jaay dara moo xam muy ab der walla ay wëjjën walla ay wala dara lekk ak sa waa kër ginnaaw day bari dana bari ñu ko yor sañ ni sa denc bañ bañ ko def lii wolof di wax naan li diif ci nag wi xëju ci cin li waaye benn yoon lañu wax mu xaj mu bañ ca xaj mu bañ ko ca def benn yoon mu ëpp leen te bisu keroog daanaka ñiy xaaraan ndaw ku nday yi xaaraan dañ néew lool ndax bari na fu ñu koy defee wala ñu bari bu ñu ko defee te fekk ñu dëkk ak seen mbokkum jullit tey dund ak njullit dëgg-dëgg daañu leen ci jàpp xel bu baax a baax a baax a baax su ko defee nag kon ñu bokk ko waajal bu baax te lépp yàlla rekk tax yàlla nañu ci yàlla àggaleeg jàmm te ñu weesu ko ak jàmm tey lépp yàlla nangu ko te ñu bokk ci santat yàlla bu baax ndax waajtaay bi ñu koy waaj kenn ku nekk ne ci sagoom am na yeneen bokk jullit yoo xam ne ñu ngi feneen di dund coono yu metti yoo xam ne xamuñu taluñ ñoom taluñ tabaski taluñu tabaski nañ leen ñaanal yàlla mu delloo leen ci seen sago fii ab xeex moo ko waral fii ak wéradi moo ko waral bañ ne bu kenn jógee fii dem fee wéradi yow yàlla na ci yàlla musal Sénégal ak li ko wër fam amagoon akus néew yàlla na ko fa yàlla yamale fam àgg gutoon bañ fa àgg te ñam dal mu wér jàmm ci barkat jëfandikoo sunna seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañ ko fekkewaat ay déwén yu bari te lu ñu ci def suñu borom nangu ko yaxfirullahu lana wa lakum wa lisaa'iril muslimin